ngir jokkoo ak ñoom woote leen ci numéro yi di 77 389 75 51 wala 33 957 61 85 adresse mail free site web www.free.sn. Free, l'emploi, notre métier. Free entreprise bi leen teewal ci diwaanu Mbour ngir képp ku bëgg liggéey wala ay liggéeykat Free moo leen di may seen émission الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن احتفى أسارهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو جيتل شي نيو بي اك زيارة بي امام ييغا خامني نيوم لا يالا جيتل شي سونو كانام تكا نيك تا بوبا دي امام الحاج مالك نيان ني نانال لين يالا يالا ماي لين توفيق اك تيسير اك حبول dàqal leen seytaane ak bakken dàqal ko yàlla bu ñu gis seen bopp ñun yàlla bu ñu gis suñu bopp ci barkeent bi sallallahu alayhi wa sallam ba lépp lu ñu ànd ak jaami yàlla yi jaamu ko seen borom yal na yàlla nangu ko te ful ko nuy mag ñi ziar leen ñaanal leen yàlla yàlla may leen wér yàggal leen sunu kanam ci turu sunu baay xaaji mbay moroon fa tabaarakallahu ñi nga xam ne dañu tawat yal na yàlla saafara leen delloosi leen ci mbooloo mi ci jàmm ci barkeentu sallallahu alayhi wa sallam am na it ay imaam yoo xam ni li tax ñu gëj leen a gis seen yaram moo sutante ñoom it ñu ñaanal leen yàlla yàlla yëkkati leen delloosi waat leen ci mbooloo mi ci jàmm ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal mbokk yi faatu yal na yàlla jéggal leen yal yàlla yërëm leen am na sunu benn wayjur bu ñu wax yaay Mbène Dieng génn àddina ci ay bés bële ca Tiwaawan moom it yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla xare aljana ak mbokk yi faatu yépp bàyyiwuñu kenn fa tabaarakallaahu ñaan réew mi yàlla dolli fi jàmm def ko ci àddina bi def ko ci Palestine ci barkeent bi sallallahu alayhi wa rawatina Sénégal mi ngi jëm ci ay élection yàlla na yàlla def jàmm ba lépp jàll ci jàmm ñépp am jàmm ci barkeent bi sallallahu alayhi te li gën ci réew mi yàlla def ko fi incha allahu taala ñu ñaanalit sunu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci fleuve ba ci booru Bakel jëm frontière Mali ginne xam ni tey ndox ma moo nangu seen dëkkuwaay ci kàttanu yàlla ñi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla oyofal lépp ci ñoom ci barkeent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fépp foo xam ne rek jullit am na fa jafe-jafe ci wàllu nawet bi yàlla na yàlla oyofal lépp te yàlla saafara lépp ci barkeent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu ñu delluwaat rek fàttalante comme niñ koy faral di waxe wa dhakir fa inna zikra tanfawul muuminiin yàlla moo wax ni jullit warul ñu waruñu dañ ci di ko fàttali ndax fàttali bokk na ci li koy jariñ digganteem ak boromam fàttali bokk na li koy jariñ ci wareefam bi nga xam ne moom la wara doxal ci àddina te loolu rekk moo tax yàlla wàcce ko ci kaw suuf وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني عبودية الإله يبوبنا دفع أم ترلين بكو يال ترل فتبارك الله تبقنا لتي أبصلو موي لنو تدي التهار تموي لاب ndax lab dafa am solo ci mbolem xetu ibadat yep fa tabarakallahu moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni attahaara daal mooy raful addasil akbar aw raful xabasi bu ne xaddasil akbar nag mooy toj boo xam ni la budda mënul ñakk ci nit ki dem tabaarakallaahu dindi sobe bi nga xam ni moo nekk ci jëmmam wala sobe boo xam ni moo nekk ci yére bi muy sol di ko jaamoo yàlla wala sobe boo xam ni moo nekk ci palaas bi nga xam ni ca lay jaamoo yàlla moo tax mu ni ñaari taxaare yooyu nga xam ni mooy taxaaratu xaddas ak xabbas mu ne bu fekkee taxaaratul xaddasi la nag wa yakunu bil wudui wal xusli mu ni mënul ñàkk mu nekk ci ki nga xam ni dafa amee woon njàpp njàppam toj wala mu am asbaab yoo xam ni def na ko ba lay toj njàpp toj njàppam te loolu dinañ ko indi insha allahu taala mooy li nga xam ni su gaaree nit ki njàppam dafay dafay yàqu dafay dem jàppiwaat wala li nga xam ni su gaaree nit ki dafay waral moom mu dem sangu ji ak yu mel noonu mu ni nag bu fekkee taxaaratul xabbasi la nag mu ni euh, la bu daan yakuna mënul nekk mënul ñàkk mu nekk ci bi izalati najasati ci dind sobe ya bi saw bi aw bil makkaani walla aw bil badani wala ci yaramam kon ñaari ñaar yooyu ñoo ànd ci at taxaara muy xabas ak xabas bu dee xaddas mooy dindi sobe boo xam ne dalay waral soo ci jógee nga dem jàppi moo xam danga dem ci toilette bi nga tuur ndox wala nga faj fa sa ajo walla da nga am jote ak sa soxna wala yaay gaar ba nga xam ni man yi dina génn ci yow génn na la ci mboolem fànn yi nga xam ne mën na fa jaare yépp ci sa yëg-yëg yow doomu aadama su boobaa mu waral la nga dem mën a sangu ji farata pour mën a jaamu ji yàlla ndax su loolu amul jaamu yàlla bu du wér moo tax maam Seydi Hadj Maalik radiyallahu anhu di ñu fàttali ci làpp mu ni taallamu kayfiyata tahara muy nañu fexe ñu ñépp ñu xam ndax xam bi mooy fardu ayni loo war a xam la ku nekk da ko war a xam mu ni wa kammilul aadaa bil waqaar yi te ñu matal cër yi ci protection fegu ndax dañu wax ni bu ñu waxee attahaara imam Xazali dafa wax ni dañu ko séddale ci ñeenti xaaj benn bi mooy awalan tatxiiru zaahiri min al ahdaasi wal ahbaasi mu ni mooy laabal toj sobe boo xam ni dafay bokk ci ñaar yi ñu waxoon muy taxaratul xaddas ak xabas mu ni loolu bu ci nekk mooy wàll bu njëkk wi nga xam ni loolu mu dara mënu ko jagal lu dul nga dem wuti ndox moo koy def ndox nag boo xam ni maawu al tahir al mutlax maa ndox mu làpp la boo xam ni euh, mucc na ci ayib yi nga xamante ni bu ko raxee rek dootul mën a jaamooti yàlla te loolu dinañ ci ñëw incha allah mu ni ñaareel bi mooy tatxiirul jawaarixi minal jaraimi wal asam mu ni laabal sa ay cër moo tax mu ni wa akmilul aada bil waqaari nga laabal say cër ci lépp luy rëcc rëcc ak bàkkaar ndax làmmiñ dina def bàkkaar loxo dina def bàkkaar bët dina def bàkkaar nopp dina def bàkkaar tànk dina def bàkkaar xel dina def bàkkaar te yooyu yëpp gis nga sooy jàpp danga koy raxas ba ba ngir nga mën a dem jo janoo ak sa borom subhanahu wa mu ni ñetteel bi mooy tatxiirul xal bi min al axlaaqi zunub zunubi wala min al axlaaqi al mazmumati al axlaaq al mazmuuma mooy dafa am al axlaaq al salbiyaat am al axlaaq al ijaabiyaat dafa am jikko yoo xam ni dañu ko taamu ci nit am jikko yoo xam ni kenn taamuwu ko ci nit te loolu ci xol lay gaar mu ni kon yow war nga laabal sa xol kama xaala jadduna alxaaji Mansour وتدخير الخلب من عقد ومن حسد ومن كل وصف زميم بين أقران مني نيت كو نيك وار نغا لابال سا خول نخلو ام امبورطانس لا تي دوما ادم يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا سو خول باخي نيت كي ليپام باخنا مي سو خول بوني نيت كي ليپام بوننا مني كون نغا فخي نك nga laabal sa xol ci bañ a iñaane kenn waaw ci bañ a iñaane kenn nga laabal sa xol ci bañ a soxore kenn waaw bul bul bul bul iñaan bul soxor mu ne yeneen yeneen jikko yi nga xam ne jikko yu ñu ŋàññi la muy rëy muy ngissal muy yëg sa bopp naw sa bopp muy jàpp ne yaa gën ñépp tegoo nit ñi fenn te yi la koy yi yi seytaane li tax mu la ci xiir mooy li nga bokk ak ñëpp mooy alal wala xam-xam wala daraja wala ndomba tànk nga ëmbal sa sa xol ëmb ci sa xol nag loo xam ni da ngay am yëg-yëgu yow daal bokkoo sax ak nit ak doomu aadama yi ne yooyu ay jikko la yoo xam ni benn bu ci nekk bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kumu gar ken kenn mënul fexe ba do dem safara yàlla ñu ci yàlla musal bo gisé yàlla di ñu julliloo di ñu sujjootloo di ñu lo di ñu defloo mouvement yooyu yëpp pour dindi ci ñun rëy la rëy ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin dakhala naar koo xam ne lu tolni atom mi ngi sa xol ci ci ci tomb tomb rëy yenent bi nee na kenn mënul fexe ba yow mii ëllëg safara du sa wàccuwaay yàlla nañu ci yàlla musal moo tax jikko yooyu nit yi daf koy laabal ci xolam yooyu tamit am na lu ñu koy laabale mooy ci toroxlu at tawaadu waaw man tawaddaa rafaahu llah ku wàcc yàlla yëkkati la waaw ku wàcc rek yàlla yëkkati la waaw boo gisee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ni ko war a faana lakk zikrak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën wàcc ñëpp waaw wa xaaza ma xaaza lakin laa yumaasalu min tawaaduin wa xusuuqi lxalbi wa ratami waaw xeebul kenn waaw donte moo gën ñëpp waaw xajoo ñëpp nag moom sallallahu alayhi wa sallam waaw mais laa bu xol boobu nag woor da koy def lu mel ni ngay woor ay bés ngir laabal sa xol ngay def ay azkar istixfaar yu bari ngir laabal sa xol waaw saabuunu saabuunu abdu istixfaara alxaaji abdu nee na saabu bii fóot xol mooy astaxfirullaha dëkke ko nag taqoo ko waaw ak yamu àndal yépp subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim waaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari baata ngi noonu oyof nañu lool soo koy tudd sa lammiñ waaye aka diis ëllëg ci balance su jëf yi waaw aka nekk baat yi nga xam ne nag yàlla daf leen a sopp lool waaw te mën a maye xaalis nag waaw loolu ñoom alxaaji Mor Gueye Ba xam nañ li may wax ak imam Thierno Bari subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim ku ko taqoo diggante bu ñu salaatoo ba ba ñuy julli fajar yàlla xam na ni doo jàmmat ñàkk ci kaw suuf waaw maa la wax loolu waaw laa xawla wala quwata illa billahi ali azim dafay dindi tilim tilimu xol waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kaay ma jox leen caabi koofur koofur yi nekk àjjana waaw ñu ne ko lan la muy laa xawla wala quwata illa billahi azim waaw kanzun min kunuzil jannati kanzun min kunuzil jannati te yooyu yëpp ñun dañ koy xeeb te yooyu ku ci taqu ku ko taqoo wallahi sa affaire yi lépp day baax waaw ndax am na yoo xam am na am na jàmbat yoo xam ni soo koy jàmbat sa moroomu nit sax yàlla dalay jéppi jàmbat daal fa mu neexee mooy jàmbat ko sa borom subhanahu wa taala fala budda min shakwa ila llahi kurbati fama liya xayra allahi jaabiru kasrati waaw waxar hiya baabal xayri yaa rabbi lam yufit gis nga mag ñi yàlla ñu leen yàlla fayal waaw man daal damay wax léeg-léeg man sama xam-xam bariwul waaye damay wax ni léeg-léeg ñi ñi juuyoo ak mag ni fu ñu ko teg rek jaaxal na ma waaw xam nga léeg-léeg nga am soxla ni xaaral ma dem seeti oustaz Mor Gueye nga dem fekk mu tëj tëj buntam wala moom sax mu ëpp la soxla faf wala sax nga fekk ko mu tawat mais nee na yàlla moom tëjalul kenn buntam te jamono boo ko waxee sa soxla dégg na la te déglu na la loolu nag li koy maye mbokk yi mu ni mooy nga laabal sa xol mu ni nag am na beneen laab boo xam ne nag moo gën a kawe yooyu yépp mooy tatxiiru sirri waaw bi ma si wallahi taala mu ni loolu nag mooy anbiya anbiyaai alayhimu salaatu wassalaam waaw mooy ñi nga xam ni fu ñu toll rek même bu ñu bu ñu fanaane woon julli guddi gi ba mu jeex takk fanaane jàng alquran ba mu jeex takk bu ñu xëyee dañuy jàpp ni ñoo ëpp sobee ci nit ñi du ñu wóolu dara ci seen boroom ci yàlla te sama classe gi nag ku ci fanaan guddi gu mat sëkk rek jàpp ne yow àgg nga fekk xaajaguloo dem sa waaw yooyu la ñuy defee laabu euh, dafa am laabu zahir am laab boo xam ni moom la ñuy wax taharatu sirriyan mooy laab bi nga xam ni dafa nëbbu dafa dafa nëbbu kon su ko defee moo tax mu ñuy fàttali moom góor gi ba tey mu ni wa aksarul xumuumi yalabuuna alyawma bi tuhri ne lu ëpp ci jullit yi dañuy sàggane làpp dañ koy foowe te ku sa jaamu yàlla baaxul ah, ku laabul sa jaamu yàlla baaxul mbokk yi ngeen baal ma Euh, dafa am soxla bu fi ñëw boo xam ni boroom a comme niñ koy defee rek toujours ndax damay wax ni ñun li ñuy recevoir ci kàddu yooyu wallahi alazim mënuñu ko sax indi si jumaa ji waaw ndax jamono moo toll foofu kon nag ñu jàppale na rek te yàlla tax bu ko defee saw nga jóg ak ku mën a jóg rek laaj xam nga am na ñoo xam ne yàlla da leen defal tawfiix kalaasu Pape Lay Fay gi ak kalaasu Moustapha Ndour gi ñoom amuñu benn problème mu àddina ndeysaan moo tax bu ñu gisee ngay laaj rek dañuy jàpp ni nit ñi fekk nit ñi nag am nañu jafe-jafe de yàlla xam na ko kon nag ñu jàppal leen rek te yàlla tax ñu ngi ñaan ñëpp ñu dugal seen loxo mu ni lu bari ci jamono bi nit ñi dañuy fooye làpp waaw te làpp ëpp naa fooye xam nga maa ngi wax àjjuma bi passé ci ma ni yére ndax lax da def ni képp koo xam ne waman wajada fi saw bi danga fekk sa yére bi nga bi nga fanaanoo nga fanaanoo ko ay fan dama lim ñetti fan rek waaye aw aksara même bu ëppee ñetti fan yi te yére boobu summi ko di ci jaamu yàlla la nga ca doon julli yëpp danga koy fay la nga ca doon julli yëpp da koy fay kon laab dafa am importance te nit ñi war nañ ko bàyyi xel ci yére yi ñuy sol di ko jaamoo yàlla ak ci bërëb yi ñuy jaamoo yàlla waaw rawatina sijaada yi ñuy jullee léeg-léeg ñu am benn xale boo xam ni euh, nañ ko couché du baax mu toog ca mën na ca bàyyi sobe te doo ko yëg yooyu yëpp da nga ciy bàyyi xel mu ni loolu nag moo ñuy jural fa yubtiluuna salaatuhum waaw maa ngi wax keroog ajjuma bi paase ma ni am na ñoo xam ne ci toilette yi lañuy ñuy ñàkk seen julli ca toilette la seen julli di yàqoo mu ni nag izaka sartun waajibun wala tuxafif amrahu yaa saaxibu ee yow sama mbokk fiiral ci làpp bàyyil xel ndox mi ngay laabe bàyyil xel tabaarakallaahu ni ngay raxase sa cër cër yi njàpp yi bàyyi ko xel ndax cëru njàpp yi li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni na nga laabal say cër ci bàkkaar yi nga xam ni da koy def ak rëcc rëcc yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla may na jaamam bi jamono bi nga xamante ni mi ngi jàpp cër bu mu raxas rek la ca nekkoon ci bàkkaar dafay wàcc ba set wicc comme ni ndox mi di dugge ci yaram bi di génn ila axiri xatratil maa yi ba ci dernier toq ndox bi sax yàlla nee na subhanahu wa damay dindi bàkkaar boo xam ni cër boobu defoon na ko te jamono bii nag mucc ci bàkkaar lu jafe la waaw ndax la am Serigne Touba waxoon ni benn solution laa ci am ñu ne ko ban solution la mu ne haza zamanu zamanu sukkuuti wa luzumi lil buyuuti loolu yaakaar naa ñi ko man bariwul waaw classe paplaay gi mën nañ ko ndax nit boo dencee dépense at mën nga loolu mais bu fekkee sama kalaas gi ñoom mënuñu mënuñ mënuñu loolu waaw kon fa tabaarakallaahu nañu bàyyi bàyyiwaat xel laab bu baax su ko defee waxtu wi mi ngi ñu dab bu àjjuma jàmm insha allahu taala ñu àggale ko yàlla na yàlla may ñu dégg ak topp euh, ñuy ñaan it sunu dëkkandoo yi dëkk ak ñun ci koñ bi ak ci quartier bi ak ci rawatina nag ñi wër jàkka ji rawatina nag ñi nga xam ne ay gan lañu ñëw ubbi fi ay place di liggéey ñi ngi ñaan seen liggéeyukaay yu yàlla na ko yàlla barkeel waaye nag ñu gën a ormal jàkka ji ndax léeg-léeg nga romb fi guddi xale yi di fi tux tux mu metti waaw loolu nag ñu ngi koy fàttali tabaarakallaahu sunu autorité yi nga xamante ni ñoom ñor wàllu sécurité bi te nekk police jàmm kën bii di jullee fii si jumaa ji ndax eh, xëy na bërëbu liggéeyukaay moom ku nekk fa la neex nga ubbee ko waaye nag ñu ngi ñaan ñu sàmmoonteeg xorma bi nga xamante ni moom moo moom moo ëmb néegu yàlla bii loolu rek lañ ci wax waaye nag ñun kuy tux ak ku tuxul suñ suñu nekku ci mais dañu bëgg ñu bàyyi xel orma jàkka ji bàyyi xel orma néegu yàlla bii léeg-léeg moto yi jaar fii guddi yenn heures yi loolu àq bu rëy la jaar ay une heure du matin deux heures du matin di accélérer say moto di ko di ko fooye ci kaw tëli bi loolu tamit ñi ngi ñaan xale yi ñu bàyyi loolu xel xamni ni loolu àq la te ak baaxul yalla nañu yàlla boole jéggal yalla nañu yàlla boole sutural yalla nañu yàlla boole defal jàmm wa akhiru dahwana anil hamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki diwanu Mbour ak liko wax sen jaxle jeexna yow mi bëgg am liggéey entreprise bi soxla ay kat ak képp ku bëgg def formation personnelle wala audit ci walum ressources humaines Free di focus recrutement et intérim teew na ci diwanu Mbour ngir gungel leen. Free mu ngi nekk fii ci diwanu Mbour immeuble ISEC premier étage jakarlo ak salon d'or ngir jokkoo ak ñom leen ci numéro yi di 77 389 75 51 wala 33 957 61 85 adresse mail free site web www.free.sn Free, l'emploi, notre métier. Free entreprise bi leen teewal ci diwaanu Mbour ngir képp ku bëgg liggéey wala ay liggéeykat Free je leen doon may seen émission Al